salaamaaleykum maa ngi tudd François Gomis ñu gën maa xam ci Franc je suis doole baajo ale bi Franc bi ku koy arrêté woo oh, kii arrêté na Franc maa ngi juddoo parcel unité 7 koñu chef de quartier bi fa laa juddoo fa laa màggee waaw sama waa koñ jàmm laa sekk ñoom ak salaam parce que ñi dama judd seen kanam ñi aussi tamit ñu juddoondoo ñi ñu màggandoo ñi ñu yorandoo lamb moom wuyu na turam quoi ngay làmb daj nga làmb doo daj. waaw lan moo tax ma choisir làmb làmb day sport boo xam ne dama koo bëgg parce que ba may booy ma bëggoon ay affaire jaayante doole yooyu noonu loolu moo ma dugal ci làmb. sama première passion. sport la rek ah ñoom dañoo bëgg sport parce que damaa juddoo ci kër goo xam ne daanaka ay jours rek a fa nekk. sumay mag su may frère yëpp ay jour lañu waaye man moom maa ci dëngu quoi maa ci ñëw dem xooli làmb ji dañoo bëgg sport quoi sport moom suñu passion la. men ci làmb rek xam nga parce que sa liggéey la ko da nga koy jox àkkam jox ko gëddëm jox ko lim mu moom quoi ba képp ku la si gis ku lay naw mu naw la si ku la ciy jépp mu jépp la ci. comme comme dañoo ne làmb yëfu góor la xam nga boo ci duggee moom. beneen nit ngay doon quoi yëfu gaynde dëgg la moom bëre daal jom la quoi jom. mooy sooy entraînement ba xalaat gars yi rek xam nga ñu lay bëggee. ñooñu moom da lay gën a rey sa bopp quoi comme boo doon def dix dina la permettre nga mën a def vingt parce que ku lay bëggee amoo fayam quoi ku lay bëggee di sonn ci yow chaque mu woo la xam nga di jël wecc itam di la jox lu mu am xam lu mu amul yëpp lépp lu rafet mu bëggoon ngir yow lépp lu baax mu bëggoon ngir yow comme kooku waxuma la entraînement sax sooy dox ci mbedd bi nii sax xelam daa war a nekk ci yow. man nag bëgguma woon koo xam ne daf ñu doon néewal doole man man man man man loolu moom bëgguma ko woon quoi xam nga léegi moom fu ma ko mësoon gis sax même loo xam ne sama yoon néew sax dama ciy dugg waaw néewal kuy néewal nit doole daal man bëgguma ko. waaw sama idole Yaxya Jóob nii la parce que boo gisee lu tax ma def ko idole dafa am jom ci lu muy def am fulla xam nga ba bu ci liggéeyam daal da koy gis mu respecté ko jox ko cër loolu daal moo ma neex ci moom moo tax ma def ko sama idole ma xool carrière xool ko ay entraînement lépp ma xool nii zéro faute daal. man mooy li may wax chaque jour rek dama ci ñëw pour yokk suma xam-xam pour jàng bëri comprendre nga xëy na nag bu ñu demee ba euh, toll foo xam ne du ñu moytu ñuy bëri mbapat moom dañuy arrêté quoi mais pour l'instant moom ay mbër lañu ay booy lañu aussi te dañuy comp dañuy baax ñuy compétir di yokk suñu expérience di yokk suñu xam-xam quoi méthode de travail waaw bari na comme ni dañoo nekk ci ay loxo xam nga dangay ngay ñëw ñu ne la del def lii del def lee xam nga ñu def yëpp mënoo ko capter sax ndax day bëri quoi sama foor ak sama faiblesse bàyyi ma jox leen rendez-vous ba jour combat ba ngeen xam foor bi ak faiblesse bi sama carrière lu ma gën a marqué non gisaguma loolu suma carrière wax naa ko waxati ko gisaguma loo xam ne lu ma kii la quoi loo xam ne marqué gum na ma gisaguma ci làmb quoi borom mbagg boo gis boo ubbee xol bi magasin la si fekk waaw bëgg nañu comme suñuy morom yi lu ñuy yor ci làmb ji ñu yor ko fi rek comme ni ko sama grand yoree ma yor ko bëgg naa yor roi des arènes quoi. waaw pourquoi pas parce que man sport laay def sport moo ma tax a jóg te xale bu ndaw laa. foofu yëpp war nañ fa mën a dem wane fa suñu talent nu lu ne si ñun war nañ fa mun a dem perce fa wane fa ci sport boobu MMA soit kickboxing ak feneen ak feneen lu dul loolu sax war nañ fa mun a dem wane fa suñu bopp daal wane fa suñu talent parce que am na lu nekk ci ñun war nañ ko mën a wane ñu yàlla dafay tawfeex ak kattan ak jàmm rek incha sama life li ma ci bëgg a réaliser bari na bari vraiment maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla defal jàmm rek ba ma àggaleeg sama sogo daal parce que am nañu yéene yu bari yéene yu aussi tam yu rafet quoi. bi ma commencé sama carrière ba léegi lu ma ci gën a neex ak lu ma ci gën a nakari gisoogu ma ko quoi peut-être nag xëy na dundaguma ci loo xam ne lu kii la quoi mais dundaguma loolu quoi dundaguma bànneex bi dundaguma nakar bi quoi. su ma xëyee gis sama yaay wala ma ji sama papa xam nga. su ma xëyee romb leen noonu may dem ñu encouragé ma ne ma yàlla na teg ma teg ma ci kii daal teg ma ci ñaanal ma aussi conseil ma. ak su may xarit ak su may dëkkandoo ñoo xam ne tey jii su Franc génnoon fii sax ku ko wax benn baat rek ñu jalante ak yow xam nga ñooñu ñoo may gën a motiver quoi vraiment ak képp koo xam ne daf may bëgg daal man ñooñu su ma leen déggee damay motiver wu quoi. waaw avant tout lu may wax jeunes yi. ñu respecté seeni waajur parce que waajur dafa am importance parce que man mii di wax ak yow man maa ngi samay waajur am na ñoo xam ne nekkuñu ak seen waajur comprendre nga. leen wax aussi tamit luñ ko mën a gën a fonk ci àdduna doyul ñu respecté leen jox leen cër ñu gën leen yëkkatiwaat parce que waajur dafa am importance ci doomu aadama surtout ndaw bu bëgg dara bu ëllëgee nga doon nit ku mag waaw sa waajur moom da nga ko war a jox lépp lu mu yor nga jox ko. bu la yàlla dimbalee ba nga nekk ak sa waajur moom fexel nga góor góorlu si jox ko lépp lu mu moom daal lu mu yellool nga defal ko ko parce que waajur du ay foo quoi loolu am lu may wax jeunes yi aussi tamit ku ciy liggéey wala nga ciy jàng nga gën a góorgóorlu rek xam ne dëkk bi des na fii ci kanam tuuti rek même booy soox sax affaire yi day métti quoi waaw ñu gën a góor góorlu rek.